on, Vairi.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 Euh, ñoo ngi koy jaajëfal dem gis nañ délégation bi ak ki nga xamante ni mooy Sa Touba tamit ñoo ngi koy jaajëfal bu baax a baax gis nañ taxawaayam ci bés bi waaye te nag mbokk ñoo ngi fii Pikine seet si nga xamante ni mbokk yi mooy Boy Jules démb moo doon jàkkaarloo ak ki xamante ni mooy Bécaye bu Sa Ndiambour démb nag gis nañu combat bu neex bi ñu bëree waaye combat bi mën naa gën a yàgg ndax ñu ci bëri doon nañ ciy xaar bëri bu neex ak xeex mais mbokk yi gis nga noonu la combat bi demee tey nag gannaaw daan na ki nga xam te ne Boy Jules ñoo ngi félicité Bécaye ci ndam li nga xam te ci lam ci ko Boy Jules di encouragé ki xam te mooy Boy Jules ñu bàyyi ko mu nuyoo rek ñu doog a dugg ci waxtaan wi Boy Jules nuyu naa la. yaa eh, Ousseyn maa ngi lay fay di wax jërëjëf Serigne Touba jërëjëf Serigne Touba jërëjëf Serigne Touba maa ngi sant yàlla bu baax a baax a baax di sant ñëpp di bëggee ñëpp di sant waa Pikine bu baax di sant suma yaay bu baax a baax di sant sama staff ñëpp sama gaay yëpp maa leen di bëggee bu baax a baax waaw gis ngeen sama gars yi maa ngi bëgg bu baax a baax gannaaw avant làmb ji bi bi làmb ji taxawee jël nañ ko bi làmb ji jege see jël nañ ko làmb ji jeex na ñu ñëw fii mais ñu ñëw ñu ñëw ci kombaa bi. Euh, Boy Jules démb naka la ñëw waaw ah, Boy Jules pare na yàlla ànd ak rek waaw yàlla moo ànd ñun rek mais Boy Jules lépp lu mu war a def ak copain bi li ñu war a taxaw ci moom ñëpp taxaw waaw ñëpp a ma taxaw démb waaw mais yàlla moo ñëw rek waaw bu ñu xoolee làmb ji ni mu demee sax ñu xam ne lépp yàlla la. waaw dañuy santaat yàlla rek. démb démb ñu ñu ci bëri dañ ne euh, waa waa waa waa Pikine wala boog waa Fallaye Balde ñu ci bëri démb gis ñu woon làmb ja waa équipe Fallaye ñëwoon nañ. waaw waaw équipe Fallaye ñëpp ñëw nañ ñëpp ñëw nañ gars yi jàppale nañ ma bu baax a baax wax dëgg yàlla équipe Fallaye moom maa bu baax. préparation naka la woon parce que nag démb bi nga simee ko macha ñëpp gis nañ booy Jules de forme bi nga xamante ni am na ko préparation bi naka la woon. waaw waaw préparation bi lépp Jules Baldé la rek ak coach suñu coach Zal Zal Badara ñoo si jàpp bu baax a baax waaw entraîné nañ bu baax wax dëgg yàlla waaw ñaaxuñu kàttan ci combat bi liggéey nañ lu ñu war a def samay sëriñ ñaanal nañ ma waaw te yaakaar naa ne moom ku am bu fekkoon ñun dañoo yor duñ ñaan waaw kon yàlla moo yor lépp may sant yàlla bu baax a baax a baax di félicité bégaay di ko wax yàlla ko ndam ni jikk waaw balaa nga koy félicité dañoo ñëw ci tuus bi parce que man dama doon seetaan tuus bi mais mag dégg ay écho ñu ne Boy Jules boo ko xoolee xam ne dafa diis dafa diis maanaam dañ la jékku woon wala boog poids bi nga jël moo bari woon wala. poids maa ngi nii. non xam nga mbëri nag ni ñuy mel làmb ja ak bu làmb ja jàllee day xaw a am tuuti différence dama xamul dama xamul gàllaa ci la wala yi ñuy sottee ko wala yi ñuy takk la wala yi ñuy naan. moo demee noonu rek làmb moom noonu la xam nga yi demee ku nekk da ngay analyse rek waaw booy xam nga ku nekk da ngay analyser rek ku ci nekk da ngay analyser di nga gis waaw mais man sentiruma ni moom gis naa te topp ci lépp lu ma def rek def naa ko topp naa lépp macha allah. Euh, dama dégg ci ci ci ay écho làmb ji ñu ci bàyyi bugguñu ko woon ba ci yow mi mbër mi sax mais sës a taxoon nga jëloon nga jëloon Bécaye. non non du sës Bécaye mbër la rek Bécaye champion la Bécaye man damaa mën a daan daan na ay mbër daan na ay mbër yàlla moo tudd ne daf may daan dama koy sant yàlla di ko féliciter bu baax di ko yàlla ko jik vraiment waaw ah, du dara wax dëgg yàlla man moom aw ma effet boobu man ba ma amee Serigne Touba laa dara. bilaahi démb euh, ngeen nekk ci biir géew bi abi sëf ngeen taxaw diglantoo ko ndax nga bëgg ak Bécaye waaw ah, li ma li ma li ma entraîné rek comprendre nga li ma gars yi rek moom laa bëgg moom comprendre nga waaw ah, noonu la demee quoi parce que bu ñu xamoon luy xew ci géew bi yaakaar naa du demee noonu mais lépp yàlla la entraîné nañ ñëw nañ bëreeg moom. lii ma combat bi combat bi abi sifle abi abi sifle Bécaye cokkaas na comprend nga ma sànni ko góos ma daw mu jël sama tànk ma sànni mbot mu tànk. tàppale moment moment bi muy tànk. yow tamit da nga doon daw tànk mais dafa ni moom moo a a a yegg si après tànk bi mu jëlee na coppe si tànk bi te ko yëkkati ba taxaw. waa di calbin bi muy calbin bi da nga gis. may calbin maa ngi parce que bërekat laa yàgg naa bëre loolu dara <laughs> loolu du loolu yàlla loolu après noonu bi may génn la coup perdu bi dugg nag gisuma coup bi coup bi moo ma moo ma moo ma moo ma tuuti. fan la la dóor parce que man xool naa xool ralenti yi mais gisuma benn coup fu mu la dal. coup fii la dal coup la dal foofu la dal comprendre nga waaw ah, la rek moom bi muy dóor coup bi sax xam naa ne gisu ko coup coup perdu la yàlla xam na ko. mais mu dóor la ko nga kaaw dugg mais am toute résistance reculé. Ah, parce que dama dama ciy dama ciy daj ay coono yu métti. xeebu ma ko woon yàlla xam na ko billaay wallaay taalaay xeebu ma ko woon damaa entraîné lu metti comme ku bëre bu champion bu mag a mag billaay wallaay dama ci entraîné bu baax mais après nag yàlla moo ñëw ak ay mbiram bi ma kaaw arrière naa mu song ma ma def rotation di jiitu. bi mu lay song bi bi bi mu lay song di daw di la paqueté maa ngi la gis nga def rotation da nga doon bëgg mbot wala da nga doon bëgg tuur. Ah, xam nga instant kaawa bi jeexul bu baax a baax bu fekkoon kaawa bi jeex na dinaa ko mën a mbot su ma ko mbotee damay am damay mais nag waaw yàlla moo tuddoon ne damay daanu moo tax ma jël coup perdu comprendre nga maa ngi sant bu baax santaat naa yàlla bu baax di ko santaat bu baax a baax di waxal jërëjëf Serigne Touba. mais moment bi nga daanoo euh, dama gis ne danga yàgg ci biir géew bi defet bi dala bett wala. waaw bett na ma nag ah bett na ma. wax dëgg yaakaar woon ne Bécaye dina daal. yaakaar yaakaaruma ko woon mosuma newul sax sama philosophie buñ doon bëriwaat suba suba suba mënu maa daan. bëggoon nañ bëriwaat suba mënu laa daal. waaw waxuma nag ngir saltel defet bi wala dara comprendre nga xam nga àdduna ñoo may seetaan waxuma ngir saltel defet bi wala dara maanaam exemple tey nii coupeur bi boobu moo ko jëlul woon ma làmb ji day demee neneen waaw mais sant naa yàlla bi ma jëlee coup bi toog tey jii di waxtaan ak ak yéen di am jàmm di nooy maa ngi santaat yàlla bu baax a baax dëgg yàlla waaw. moment bi nga bi nga bi nga jógee sa bi nga jógee stade ànd ak say mbokk. dugg ci oto bi ba yegg sa kër moment bi nga toogee difficile woon na. non non parce que maa doon dalal gars hmm. yàlla xam na ko ñu ngi nii maa leen doon dalal. ñu wax ma leen non non affaire yi moom lépp yàlla la. mbiru sunu borom la. wane wu ma yaa fuus entraîné naa lépp lu ma war ci combat bi def ko yàlla moo ñëw. su ma doon may sama bopp du ma ñaax dara kon du ma nekk mbër nitu yàlla laay nekk. Hmm. comprendre nga kon du ma ñaax dara ci àdduna mais yàlla moo waaw waaw yàlla mooy lépp yàlla moo lépp mais maa ngi sant yàlla waaw maa ngi koy dégg mu naan maa ñàkk jàppale. Ah, non loolu boo ñëw woon sax ñëw parce que nag xam nga des fois boo waajee boo waajee combat surtout boo peetee boo gañee sax des fois ndam li mën na laa yóbbu mais soo peetee yu bari des fois day ñëwaat ci xel mi ak xool bi xam nga combat bi nga ci jàppale. waaw xamul ndax man am naa jàppale parce que sama copain yi ñu ngi may jàppale ku ci mel ni moom mii rek daf may jàppale ñoom caam ñoom jiili man góob ma milliardaire bilaa walaay taalaay man nekk ak booy ñu may jox seen juróom-juróom moo ma gënal comprendre nga man bugguma gëwuma ay ngisal wala affaire yooyu noonu sama gars dañ ma jàppale bu baax samay gars yi dañ ma jàppale bu baax samay gars laa wax ñi nga xam ne yéene nañ ma jàppale nañ ma bu baax a baax mhm. ñi ma jàppale ñi ma war a jàppale jàppale nañ ma maa ngi sant ñëpp ok. làmb ji jeex na. fi mu toll nii nag defe naa ne saison bi sax weekend prochain incha allah lay tëj ñu nuyu nga xam te ne mooy Ibulaay moom mooy la boobam 27 si diggante nga xam te ne mooy Kankang ak Youssou Ndour moom tam ñu koy ñaanal bés bu ñëwee ah, na nekk ci bés yi nga xam te ne ci bés yi dàq saison bi nag ndax bi mooy premier journée am waaye daanaka mooy bi di ñaan yàlla nag ak supporters ñëpp ñoo wuyu su ko ah, ñu bëree combat bu neex ambiance am lépp am gannaaw combat bi jeex na <laughs> gannaaw combat bi gannaaw combat bi jàll na léegi booy jeunes ñu ci bëri nag nañu boo daanee da ngay yéeg boo daanoo da wàcc Boy Jules dafay wàcc wala dafay wala fa mu taxawoon lay taxaw. fii yàlla moo yor luy yéeg ak luy wàcc comprendre nga yàlla sunu boroom moom moo yor lépp mooy matale lépp dëgg yàlla bi may jël bekaay bekaay du mbër mu ndaw boo xam ne daa wàcc làmb la comprendre nga daanu ay daanu wàcc wala affaire yooyu nit ki yaay da neex nga wàcc sa bopp da lay neex nga yëkkati sa bopp. mais ku ma làmb boole rek dinaa bëre ak moom parce que mbër laa vraiment. non mbër yi nag des nga dégg ku ci ne bu ma ku ma boole ma bëre ak yow mais des fois ñu seet si la jox la avance nga ne non man kii du ma bëre ak moom. non waaw mën na nekk des fois am na avance yoo xam ne doo ko jël. non non. des fois foofu ñu génnee ne ci xol yi. dégguma li nga wax léegi comme comme li nga wax léegi nii rek comme yenn mbër yi nga xamante ni ñun ñoo leen raw Bécaye dañ ko raw dañ ko raw ci làmb dàq ko bëre bëreeg ñoo xamante ni nii moom xaaj ba xaajaat ba xalaatuloo bëreeg ñoom mais bañ koy jël ñun dañ ko jël ngir bañ a année balance parce que ñun bëgg nañ chaque instant suñu mbër di bëre ñun bëgg nañ suñu mbër même bu dee trois combats sax mu koy am ci ci benn saison bi loolu bëgg nañ ko mais Bécaye moom xam nga yàlla moo ñëw rek mais ñun mosuñu woon yaakaar ni dina ñu daan musuñu ko yaakaar fooguñu ko woon fenn yaakaaruñu ko woon fenn ba démb bi ñuy dem bi ñuy dem confiance lañ demee ba ba ñuy dem ñun confiance lañ demee démb mais xam na rek man suma ko woon yaakaar man damaa toog ak sama xel mu daal laaj ko dañoo amoon max damaa baay max beeg lépp man dama ne dañuy daan dañ ñëw loolu laa mais xam nga dëgg yàlla coup bi mu jël ñun sax xam nañ ni coup boobu moo ko daan ñun xam nañ ko parce que seetaan nañ làmb ji bu baax a baax xam nañ ni coup bee ko daan mais Bécaye ak kii mille combat du ko daan ñun dañ doon pare dem jëli ji ñeneen. ay léegi gannaaw daanu ngeen gannaaw daanu ngeen léegi fu ngeen koy yóbbu wala lan ngeen koy wax wala kan ngeen di xam. ñun fu mu toll ni defet bii nii wàññiwuñ dara parce que combat arrangement la woon kase ñu jël ci defet mais garaawul yàllaa ko tuddee noonu mais ñun suñuy morom suñuy moroom ñun hmm? talfa suñu moroom la Siteu bu Ngor suñu morom la war nañoo war a mën a bëre pour lan ñooñu noonu nañ jël booy bi nañ ko jël ñu xool loolu mooy làmb. defe naa ne am na solo am na solo euh, Boy Jules fi mu toll nii boo gisee xam ne genre déception am na parce que nag ko boo yaakaar ndam combat yi demee nii lan ngay wax ñi xam te ñooy waa Pikine ak ñooy bëggee Boy Jules ak say supporters loolu ñu wax. waaw dama leen sandaat bu baax damay waat ñëpp di sandaat yàlla rek di sant ñi ma jàppale ñëpp di sant waa Pikine bu baax. sama gars yi ñëpp maa leen di sant wax dëgg yàlla ku ci mel ni coo jiili comprendre nga Diouf ñoom Ahmed Diaw ñoom Baye Sall maam Cheikh sëñ maam Cheikh maa ngi koy sant bu baax maam Cheikh Mbacke moom jàpp na ci combat bu baax comprendre nga ak mara yi may ñaanal yëpp mënumaa tudd seen tur waa ñangal ñaanal nañ bu baax waa ñangal sant naa leen bu baax a baax a baax comprendre nga waa Martin 5 sama waa fay waaw sama waa koñ aw ma seen fay maa leen sant bu baax a baax a baax wax dëgg yàlla ñoom maxu ñoom sam comprendre nga sama gars yi ñi may jàppale ñëpp billaay walaay taalaay aw ma seen fay waaw maxu maa ngi koy sant bu baax a baax waaw ku ci mel ni Amel Diaw ñoom gars yi waaw Pao Mar Julde yi sant naa ñëpp sant naa sama waa ASC bu baax ASC yow maa leen ñaanal jàmm bu baax a baax maa sant ñëpp. ñaaxuma dara am naa Serigne Touba sama xol ñaaxuma dara barki Seera Fall liiru dara. waaw rendez-vous yi prochainement. waaw waaw maa ngi maa ngi maa ngi waaj rek maa ngi toog di entraîner waaw ndax bu ma xëyee wax dëgg yàlla ma entraîner ji. tey tey tey jii. tey tey bu ma xëyee damaa dem géej entraîner ñëwaat. mais mbëri bu ñu amee ndam wala ñu am defee sax dañuy toog noppalu une semaine wala kii mais nga bëri démb xëy tey dem entraîner ji. non non boo daanoo da ngay wéet say nit doo ngay gis temps boobu nag mën naa dem entraîner ji ko. yee la demee mais maa ngi sant yàlla bu baax sant naa ñi ma jàppale ñëpp sant naa ñi ma jàppale ñëpp wax dëgg yàlla maa ngi félicité bakaay bakaay bu baax a baax waaw di ko ñaanal na ko na ko ndab li jik parce que làmb la rek ñoo bokk Sénégal comprendre nga waaw maa ngi sant ñëpp. soriwul Pikine nag passé waaw non benn la rek benn la xam a làmb moom moom lu ne ngay dégg maa ngi sant tamit di ñaanal fallu Ndiaye moom it yàlla defal ko jàmm. waaw di leen bëggee bu baax amateur làmb yëpp ñu doon supporter Boy Jules yëpp esat démb de comme waaw mais maa ngi sant yàlla daal maa ngi bëggee ñëpp kontaan naa bu baax a baax wax dëgg yàlla meru ba ci kenn seet Seydina Muhammad waaw alhamdulilah defe naa ne am na solo tey Boy Jules lañ seet si woon waxtaan ak moom ci combat bi nga xam te ne ci la jógee démb diggante ma Boy Jules gis ngeen ni mu ko waxee amul woon yaakaar ne Boy Jules dina ko daan Bécaye dina ko daan waaye nag mbokk yi euh, làmb moom ñaari ndamay dugg waaye benn génn di félicité waat ki nga xamante ne mooy booy bekkaay bu baax a baax di encouragé booy Jules di leen wax ne làmb noonu la képp koo xamante ne am nga ci am nga ci defet ñoo lay ñoo lay ñoo lay encouragé bu baax baax di félicité ñi daan mbokk yi di leen jox dig daje beneen yoon ak yeneen mbër ci Kewel Info jaa ngeen jëf